jamono ji situation politique bu Sénégal tàng na loolu benn année rek des ci élection présidentielle yi ñi nga xam ne ñooy waay politique yi di xiiroo ak ŋaayoo mi loo xam ni buñ moytuwul dina indi fiit na ci réew mi ñu bëri nag ñu ngi artu ci loolu la plateforme bii di mesure juddoo li ko tax a jug nag mooy fexe ba jëli fi lépp loo xam ne day nasaxal jàmmi réew mi. Sénégal bu acteur politique yi moomuñu ko loolu tax ñu ne jot na ginnaaw li fi xew am ah, ci ay initiative nga xam ne lu mel ni COSC. am na ko nañu ut loo xam ne day gën a sax kawe loolu nga xam ne képp kuy sénégalais war nga ci mën a gis sa bopp muy acteur politique bu bëgg a jàmm muy secteur privé muy société civile ñu xool waneen acteur politique yi moomoo leen réew mi euh, le peuple reste souverain te dinañ leen indi ci jàmm ndax jàmm mooy li nga xam ne si la lépp xaj loolu moo waral tey ñi nga xam ne mooy mesure plateforme bi nag di woot ngir ñu amal ay waxtaan ak ay débat yoo xam ni dina jëmal réew mi kanam. Sénégal day réew ñuy tabax. réew bu ñuy tabax dafa soxla ñëpp ànd te bu fekkee ne dañuy xiiroo ŋaayal suñu biir tabax bi du sotti. foofu lañ toll du du du réew mu sotti ba pare sotteegul donc loolu moo tax unité boobu am solo tant que nag amul xale mu am ay jeexi jaaxa kii jaar fii kii jaar fële ku jul sa morom daal lu koy tam dëmm wala nga ne kii euh, mu ngi samay tànk et cetera nga am nooy taxawaay du sotti donc nañ fexe ba ànd doon benn bu ñu àgg foofu donc dañuy waxtaan nañ dalal xel yi. plateforme mesure mu ngi dajale ay organisation yu nekk ci société civile bi ay acteurs politiques waaye itam ay nitu diine ñu ci woon nag bépp citoyen boo xam ni tabax réew mi ñor na la ci loolu ñu tàmbali ab pétition boo xam ne ñu ngi ciy séentu un million de signatures.